xam nga nit nit nit nit nit rek la nit kenn du ko mettre xam nga ñun amuñu temps ñun nous sommes les seuls yoo xam ni en permanence ñu ngi ci hôpital xam nga ki nekk ci hôpital di liggéey amul temps pour lu mu ute ji feneen feneen xaalis ba tax na nit bu nekkee ci loolu nekk ci biir fonction publique état wax ni dafay def ay étude bu mu defee étude ba pare gis ni xaalis bi nga xam ni tey jii moom la ñuy fayee payeeru fonctionnaire yi agent de santé agent de l' agriculture enseignant ñooñu nga xam ne ñoo ci gën a néewle ak collectivité locale ñu ne 2017 dañuy ñëw pour régler affaire boobu ñu waxtaan ñaari yoon état bi ne léegi conclusion yi dañ ko xool mais bu buñ koy xool dañu ñi nga xam ne ñoo féete woon suuf dañ leen di yëkkati ba nu egg a tolloog ñeneen mais depuis boobu te gis ngeen def ñu ci dara et entre temps ñaata agence lañ fi créé entre temps seen clientèle politique bi ñuy indi ñaata lañ toll di leen jox ay salaire u cinq millions six millions sept millions y compris des politiciens dont la seule chose du ci njàng du ci lenn ci loolu rek lañ lañ leen koy tegee est-ce que loor mën na nekk loo xam ne di tey jii euh, am na avancé ci li nga xam ne moo jëm ci collectivité locale yi parce que signé nañ décret boo xam ni créé na au moins une fonction publique mais boo signé décret matérialisation daf ci war a am est-ce que tey ji ba loolu tey jii matérialiser nañ ko wala matérialiser wul loolu amul donc il faut que yooyu yëpp ñu mën ko régler tey jii boo demee ci dispensaire yi di nga fa fekk koo xam ne mooy dawal moo yor dépôt pharmacie bi di nga fekk koo xam ne mooy matron ba moo leen di jàppale tey jii boo demee ci poste santé benn infirmier nga fay fekk te infirmier mënul def lépp day am ñu koy jàppale boo duggee foofu am na ay brancardier mais ñooñu war nañ leen mën a dugal euh, mille presque kon bokk ci seen xalaat seen. ñu yokk ko parce que li may wax moo leen. Mhm. tey jii infirmier d' état. bi nga xam ne bac plus trois ans la. ak li muy faj lépp. caméra. ak li muy faj lépp laa la wax de ak li muy daj lépp. tey jii mënoo ki gis kuy doogu a dugg loo xam ni am na cent cinquante mille cent cinquante mille toujours lay am wala cent soixante quinze mille bërki am na ay ñu ñu jox ay indemnité gaa lu baax la indemnité deux cent cinquante mille alors que deux cent cinquante mille mooy ki nga xam ne nekk na infirmier d'état ba plafonné daal di avancé ba nga xam ne mi ngi jege retraite est-ce que mën nga concevoir tey jii njël benn indemnité jox ko benn nit bu ëpp salaire koo xam ni la muy liggéey am na am na trip te du loolu kese carrière nit ñi nit ñi mënuñu jëm jàng am ay diplômes yoo xam ne c'est reconnu sur le plan international et que li ñu leen war a recraché ci bu mu nekk recraché wuñu leen. Hmm. loolu aussi dafay poser problème. léegi ngeen ah. na bi dinañ grève. ci mois de mars bi. dinañ def marché ay bor la vingt cinq def grève. est-ce que nañu def date non non dégg dégg lu ñu wax xam nga dafa nekk ci fichier dafa am dafa am ay série de assemblée générale mm-hmm, mm-hmm. bii ci la bokk xam nga xeex boo koy def da ngay préparer le terrain te équipe nationale avant muy jëlee coupe dafa jouer ay match amicaux fii match amicaux yi la ñuy jouer bu ñu paree dinañ dem Fann dinañ dem Youssou Mbargane tere Sénégal gi yëpp laa la wax ba Tamba bu ngeen amee correspondant nga wax leen fan yi damay dem Tambacounda incha allah dañuy ànd ak gars yi mhm. gis bu ñu préparé ba yëf ñor ba ñu taxaw dinañ xam ne ñor na non c'est sûr que bu amul changement mhm. période fekk li yu togg ñor na mhm. grève moom suba sax mën nañ ko def parce que déposé nañ préavis de grève ba ministère fonction publique tontu nañu mais lam tontu ba tey dinaa leen recevoir la leen wax ba tey yaakaar ni gisaguñu lu leen tax ñu poussé leen ba enseignant yëngale fii woo nañ leen mais comme noonu lañu xam duñ leen wan li ñu li ñu représenté et loolu moo ci am. important kon ci weeru mars bi daal. dinañ grève dinañ marche AG yi ñu wax dinañ ko def semaine yi si ci topp dinañ demaat yeneen hôpitaux lu mel ni Fann Youssou Mbargane Nabil Choucair wala yooyu yëpp dañ fa def. incha allah non mobilisé phase de mobilisation lan nekk xam nga ñu